li ma bëgg a wax moom moo di li xew ci réew mi jéggi na dayo ñëpp gis nañu ni ñu këppatalee Ousmane Sonko ci ay tuuma yoo xam ne que gone sax bu fekkee ne que day tuuma day teg tuuma dina ko sanc dina ko nas te ba koy génnee dina nuru dëgg wante lii dafa di loo xam ne que dafa jéggi dayoo ndax ku mel ni Ousmane Sonko ñu nekk dafa ñëw sàcc portable benn doxandéem boo xam ne xamuñu fu mu jógee xamuñu lu mu doon def buntu këram dégg nga ba pare xamuñu lu tax mu toog foofu naan dafay koy filmer te loolu ci yoon bu dee ci yoon rek lañ nekkoon kooku lañ waroon jàpp ndax amoo droit filmer nit te fekk joxu la autorisation ci kaw loolu lañ ko fi indee gis nañ ne que kenn liggéeyuloon loon tam la te bu fekkee ne xëy nañu fi yoon nit ñi dañuy dallu duñu liggéey ñu patam lépp defar lépp ci bës yi nga xam ne que kenn liggéeyul léegi nag boobu ba tey ci li nga xam ne que wax nañ ko avocat yi jottali nañ ma ko ndax ajuma laa fi gëj dégg nga euh, moom moo di que boobu ba tey kenn mënu koo teg bët procureur boofu na ci kawam ci suba si it war na dem janoog juge bi war nañu wax ak moom war nañ ko préparer war na mun a xam bu demee lan la fay fekk war na xam bu fekkee ne dem na naka lay tontoo ak sañ-sañ yi nga xam ne ak àq ak yelleef yi nga xam ne que doomu aadama daf koo am bu fekkee ne que dañ ko topp ci yoon te mu janoog enquêteur wala mu janoog juge d'instruction nee na moo lank moom moo carré loolu dafa wane ne que fi mu ne mbir mi doole la ñuy jaay mbir mi complot bi ñu doon wax ne que complot la boo xam ne que dafa lalu nit ñi di ko weddi léegi am nañu firnde ne que complot la complot boo xam ne que pour que moom ci boppam sax mu mën a euh, maanaam wax ay mën a topp ay àqam ñu jox ko ay yelleefam loolu lépp dañ cee boof léegi nag loolu laa bëggoon àddina bi yëpp yëg ko man gis naa ko wante amul benn sañ-sañ ne ko man ret maa ko war a gis ñëw naa fekk naa ko buróom nee naa ko munoo ma tere gis sama client mu ne ma demal ma ne ko bu fekkee ne que dem naa day nga dinaa gis dinaa ko gis dinaa wax ak moom ba ma ñëwee ba may dem benn avocat nekk fa woon benn avocat moom moo ma toppoon avocat bi di wax moom ma génn bàyyi leen fa ñëw gis Ousmane ne ko mbir mi nii la tëddee léegi nag man rek du ma sa avocat man rek munu laa gis il faut que ñëpp gis ak yow gisanteeg yow loolu laa la doon yëgal si léegi nag maa ngi koy tas ci xabaar yi addina bi yëpp xam ne que procureur li muy doxale tegu ko fenn te li mu def du yoon ñun ñëpp ñun nga war a toogandoo sottanteeg ñun xalaat ñu xam naka la ñu bu fekkee ne dem nañu ci bañ a jaar fii man ma jaar fële ma dem jaar feneen mu yàq sa défense mu ne ma loolu ànd naa ci kon boog demal looloo tax ma ñëw mu ngi foofu nag di liir alxuraanam mu ngi tey mu ngi ànd ak gëm yàlla mu ngi ànd ak Pastef tey la gën a dëgër tey la gën a taxaw ci li nga xam ne que looloo ko yëkkati mu di askanu Sénégal loolu laa xabaar boobu laa amoon lu ma fiy tas.